di jiital ci siyaar bi Cheikh Ibrahima Dior Amar mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Beyti Ndongo Dior di ko ñaanal yàlla dëgëral ab taxawaayam moog mboolem ay rakkam kon ñu njëkkanteeg waxtu wi ndax xam nañ ne bis bi dafa xat ñu nekk fii ci jéemul ci télévision Touba Touba Fiso ñu dalal. sëriñ Saliou Amar mi nga xam ne mooy imaamu dëkk bi di rakki sëñ bi ñu fas yéene ko fee laaj ay laaj yoo xam ne day jëm ci wàll jumaa ji ak daara ji nga xam ne taxawal na ko ngir yar ay xale ak jàngal leen diine lislaam ñu dalal fiit it sëriñ Daam Seen mu ànd ak sëriñ Modou mu sëriñ Yaddaali moom Cheikh Mouhamadul Fadal muy ab woykat di ab bindkat euh, te bind ci borom bis bi muy sëriñ jéemul dees na ko laaj ci mbind moomu ak ci lan la wax ci sëriñ Béthio kon ñu njëkkanteeg waxtu mi rek euh, sëriñ Saliou Amar mi nga xam ne yow yaay imaamu dëkk bi ñuy rafetlu sab taxawaay ak sa itte ndax xam ne na bis bii bis bu xat ci yow la ndax say sa kër yaa ngi fa bàyyi mbooloo mu bari toog di la xaar waaye lu baax ak lislaam itteel gi mu la itteel moo tax buñ la woowee ci lislaam doo doo ko négliger benn yoon kon suñu euh, xam naa ne laaj bi day ànd ak nuyoo bi rek ñu lay laaj ci li nga xam ne moo nekk sa liggéey te mooy jumaa ji ak jàng ak jàngale kon ñu lay laaj jumaa ji ana yan liggéey moom ngeen ci nekk fi mu nekk nii. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen di leen ziare di leen bala xaq di leen ndokkeel ci bis bu mag bi nga xam ne noo ko bokk Serigne Khadim li nga wax ci jumaa ji ak daara ji dafa nekk ñaari mbir yoo xam ne mën na noo wax ne dëkk bi looloo ko sos. ndax Mouhamadul Amin mi nga xam ne moo sos dëkk bi ci weer mille quatre cinquante la ko fi andi woon nekkul dara lu dul ñoŋal diineel ñoŋal diine na ci ñaar lay taxaw ci xam-xam ak jaamu yàlla ndax sunu borom tabaaraka wa mënee su koo jaamu te xamoo ko. ndax moo wax ci alxadiisul qudusi ne taarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabudu kon jàng ak jaamu yàlla moo sos dëkk bi ba tey ci loola rek la ñu nekk li nga xam ne mooy daara ji nag liñ ci jublu mooy jàppale suñu mbokki jullit yépp ci ñu xeeñtu jéem a xam suñu borom tabaraka wa ci jàngale ak yare muy mag ñi jigéen ñi ndaw ñi ak bépp mu kalaf boo xam ne ma ngay saytu diine ci loolu ci lan taxaw ci wàllu daara ji maanaa bu soxna yi amoon nañ seen bisi bopp yoo xam ne dañuy yow ku ci am lu bëgg a xam di ko xam su dee ndaw yi tuut tànk yi sëriñ daara bi moo leen di jàngal alquran su dee mag ñi it am nañu ay jamono yoo xam ne dañuy daje lu waaye xamul ci diineem incha allahu lañ ci xam ñu xamal ko ko loolu mooy daara ji jumaa ji nag dafa nekk loo xam ne ba dëkk bi sosoo sunu maam jooju ni Muhammadul Amin ca la amoon yéeneen waaye mu defoon jàkka ñuy jaamu sunu boroom ci ni nu xàmmee maanaam di ciy def salawaatul xamsa mu jàkka mu sute jóg ci dëkk bi ñuy dem ci jamono ba ci jamonoy sëriñ jéemul loolu mu sufee jóg waaye bi ñu dikkee nag ba ci suñu kilifa yu baax yii nga xam ne mbaax googu ñoom ko doon ne ca seeni wayjur ak seeni maam sëriñ Aliou ginnaaw bu fi rakkam jógee sëriñ Ibnu ci la am pas-pasu tabax nag jumaa joo xam ne dees ci julli ajuma mu sonn ci defar ko ba lépp noppi ci wàllu zahir waaye tax woon ñu ci julli ajjuma salawaatul xamsa rek lañ ci doon def ak ni mu tollool bu jëkk ginnaawam sëriñ Moustapha nekk fi di fi liggéeyal ay way juram ka jiitu ca loola moo di sëriñ Abdul Wahab ak sëriñ Abdou Salaam ak sëriñ Bay Xawaas ak sëriñ Aliou Xawaas sëriñ Moustapha nekkal leen fii di leen liggéeyal kero ba fii way juróom yooyu jógee sëriñ Moustapha toog fi ba kero ba mu fi jógee nag ci la Cheikh Ibrahima Dior mii fi nekk yal na sunu borom yàlla yërëm way dawlu yëpp jéggal la yóbbu leen ca barsax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mii fi nekk nag ci jal bi di Cheikh Ibrahima Dior sunu borom bàyyi ko fi ca la nag takku nag taxaw ne daal jumaa ji dama bëgg lekk lépp àgg ñu julli ko àggale naa lu gaa yu baax yooyu nga xam ni ñoo jiitu woon la tàmbale ci Mouhamadul Amin Gumba Ngoone Paate Tagat sëñ Mor Gumba Binta ba ci sëñ Beyti Ndongo Joor ba ci ñu baax ñooñu ma tudd bu ko sëriñ Ibra àggalee nag mottali it yéene ja nga xam ne way juram amoon na yéeneen ndax lii ñu fi nekk tey jii muy imaamu jumaa ji sama way jur sëriñ Aliou Amar moo jëkk a wax ne ba ñu tegee xeeru jumaa ji ne saalihu dama bëgg li ngay def nga bàyyi ko te nga ñëw ñu dem jéem dama fay tabax jumaa joo xam ne su àggee yow laa fay teg nga nekk imaam bi am na at fi topp yu baree bari waaye nitug sunu borom yéenam ala kulli xaalin sunu borom rek lay neex mu dëggal loola sëriñ bi it ba mu toogee yéenam jëpp bëgg-bëggam bépp mooy jumaa ji àgg moom mu jël ma teg ma fi ma nekk imaam raatib ci jumaa ji di jiite ajuma yi ak korite yi ak tabaski yi loolu kon mën na wax ne mooy taarixu jumaa ji ci lu ñu ci xam ci loo xam ne yéene la woon waaye ñu ngi ko tàmbalee julli daal ci xilaaf ak Cheikh Ibrahima bi ci mille ci 2014 waaw sëriñ bi kon suñu déggee sa wax dafa mel na jumaa ji mu ngi ñu ko liggéey ci jamono yi sëñ Aliou ak li nga xam ne moom la si waxoon ki jamono ya ngay nekk ca bitim réew kon dafa mel ne wax jooju la yàlla àggale nii ñu laaj la benn laaj rek doog laa bàyyi ndax jumaa ji am na ab daayira boo xam ne ñoo yor liggéey bi wàllu bale beeg wàllu set setal gi ak wàllu defaraat mbooleem làmp yi si yàqu ak wàllu courant bi wala déet bisimilahi rahmaani rahim jumaa ji de soxna yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi mag ñi magi soxna yi ñoo jàppaloo di toppatoo jumaa ji di ko saytu ci wàllu setal li nga xamee ni si it moom nga wax ci la neen lu jëm ci loolu lépp ci loxol sëriñ bi la nekk ci yàqu luñ ci war a defaraat lépp ci loxol sëriñ bi la nekk naa ku ci jëf daal da cee jëf ngir yéene rek waaye entretien beeg saytu gi lépp ci loxol bi ci la ndax amoo leen ay xalaat yoo xam ne loolu nekk na ci loxol sëñ bi lu mel ne ab tollu àllarba boo xam ne day jëm ci jumaa yi wala ab dayira buñ koy tegal loo xam ne dañ naa lii jumaa jee ko tax a jug ba tax sëñ bi yanu yanu yi nga xam ne moom la yanu ndax am ngeen xalaat ngir teggul ko loolu wala. sëriñ bi moom du tàyyi waaye nag kuy def ngir yàlla it doo xool ne ki koy def man na ko dangay ngay def rek ngir yàlla am na ñoo xam ne dañuy jëf ngir yàlla ci dëkk bi ak ñeneen ñoo xam ne rajo yi su ñoo koy jënd di ko fi andi su paane ñooy dépanne am na ñu nekk ci dëkk bi ñoo xam ne it jumaa ji liggéeyal yàlla rek a leen ñor donte li ma wax ne sëriñ bi moom dégluwut kenn négut kenn ku ko ci fekk fekk ko ci ku ko ci fekku tam moom mi ngi ci rek. jërëjëf sëñ Saliou Amar kon daal jumaa ji euh, néegub yàlla la boo xam ne sëñ bi daa bëgg lu baax nit ku nekk bëgg lu baax kon képp koo xam ne bëgg nga lu baax waroo bàyyi sëñ bi rek féetewoo liggéey yi nga xam ne mooy am si jumaa ji ci wàllu fay courant bi ak yu mel noonu kon daal ñi ngi woo mbokk julli ñëpp képp koo xam ne liggéey yàlla ñor na la. loo si def rek mi ngi mel ne def nga ko ca sa kër sa ëllëg kon sëriñ Dame Sène ñu bàyyi la nga nuyoo ak laaj bi ñu la laaj mooy abyaat yi nga xam ne def nga ko ci Cheikh Béthio Ndongo Diop mi nga xam ne moom la ñuy màggalal bis bii kon sëriñ Dame bismillah ñu ngi leen di baax di leen siyaare di leen bal àq te di leen bal àq di ñaan suñu borom mu boole ñu jégal si barke bi Sëriñ Tuubaa tënk kàddu yi rekk tënk bu gàtt si li nga xam ne laaj nañu ko mu nekk loo xam ne mënta ñàkk ndax waykat ba dafa wax ne saadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax si am xelam tey rafetal yéene xalam bu dee si kar xolam xalam ba tax na gannaaw bi nga xamante ni bii dañuy yëngu ci waxtaani mbaaxu Serigne Touba bi ak képp koo xamante ne bii topp nga Serigne Touba ba am ngërëmal Serigne Touba li ñuy naan maddoxo ak li ñuy naan marsiya ndax ñaari yëpp dafa am doomu aadama bii dund sañes na kaa tagg waaye ki nga xam ne liggéey na suñu borom ba am ngërëmal suñu borom génn àddina kooku sañes na kaa way loolu la ñuy wax marsiya mu mel ni kilifa gu tedd gi ñuy fàttaliku tey xeet yi nga xam ne day daje ci doomu aadama bañ sañ a tagg doomu aadama yëpp dajoo na si moom ndax euh, bu ñu tuddee sëriñ Béthio Ndongo Dior xel yëpp dinañu dem sëriñ Touba ngir bëgg gu mu bëggoon sëriñ Touba ak cofeel gu ma afoon si moom ak maanaam ragal gu mu ragaloon boromam ak wéetal gu mu wéetaloon boromam sax lu jiitu muy gisee ak sëriñ Touba te kenn ku ne xam ne ne ragal yàlla lépp si la daje ndax fa mën a araadal xilma falee taxi laaxa waa mën a araada rosxa falee taxi laaxa waa a araada najaata falee taxi laaxa bu fekkee ne boo doomu aadama bi dafa bëgg xam-xam na ko jaare si ragal yàlla bu fekkee ne dafa bëgg alal na ragal yàlla bu fekkee ne dafa bëgg mucc itam na ragal yàlla ndax lépp suñu borom ko moom te sëriñ bayti ndango joor mboolem xeet yi nga xamante ne bii day daje si jaam boo xam ne dees na ko sopp dajew na si moom bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam lool ba amu si sago waaye bëgg sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lool bëgg alxuraan karim itam yooyu yëpp dajewoon si moom ba tax na li nga xam ne noonu laa yëkkatee sama xalima di ko jëmale si Serigne Touba di ko jëmale si maam Cheikh Ibrahima Fall di ko jëmale si mbooleem Cheikh Serigne Touba yi nga xam ne liggéeyal nañu Serigne Touba ba am ngërëmal Serigne Touba noonu lañu ñu fas yéene woon a jël ren suñu xalima jëmale ko si moom suñu liggéeyal Cheikh Mouhamadou Moustapha mi Cheikh Mouhamadou Gaddali ngir marsiya ñu tënkoon ko nag ay abyaat yu gàtt nga xam ne dañ si andi lenn rek. bay neen jamono insha allahu rabbi mbooleem murit yi déglu leen ma dee sëriñ bayti ndongo joor ngeen xam ko tey mbooleem murit yi déglu leen ma dee tiway sëriñ bayti ndongo joor ngeen xam ko tey yoon woo fa mag ña jaaroon lu xotti di wéy ba jot sa seen barke lam def akërëy daa doon ku yiw bokk fi yiw siñ bayti nii sëriñ bay ci mooy yaaram moo mat a way daa baax bokk fu baax suñ bayti mii sëriñ bayti moo xotti baax moo mat a way liggéeyal na suñ bàmba ndamam yaa ngi feeñ na tey ku ñëw fii si jéemul xam ne suñ ci raw na tey lewet yaatu am ngor lii la suñ bayti nekk woon ba far góor ña ak yaar na suñ bayti raw na leen su fekkee ngor ak maandu liggéeyal sëriñ Touba la nit ñi ranta la rawante suñ bayti jël drapeau ba bu daa jàng alxuraan dadaa neex ba ñëpp yéem daroon tari settantal araf yëpp mos a sëriñ bayti mooy kéemaan gu feeñ yàlla moo ko def si àddina ku ko noonu daa réer mbaamu dof loolu bokkoon si abyaat bi nga xam ne defaloon nañ ko ko ëpp na loolu waaye ku baax ñu taxawal foofu rek ndax mel na ne jotaay bi dañoo xaw a njëtt. baarakallaahu sëriñ daam abyaat yi am na solo xam naa ne buñ àggee ci waxtu ngoon ku ko teelu di nga gën a xam am solo gi am solo solo abyaat ñu lay laaj abra arabiyaat yi ci yan bëxru nga ko woy waaw man nag uh, la woykat ba noonu ma am bëxru sax daay woy di wax la ma yëg Cheikh Bamba mooy ka ma yëg géejam ga laay roote waaw du bëxru boo xam ne fii nii mën naa laa ne actuellement benn bëxru la ndax xeetu bëxru yëpp jàng nañu ko waaye fii nii teguñu ko si benn bëxru waaye boo ko bëggoon a kuréel tey xasida mën nga kaa kuréel xasida te loolu la ñu dee bëxru waaw kon de loolu moom kooku mooy saaxir dëgg ndax saaxir mooy li nga xam ne li muy yëg dëgg lay wax te boo ko nattoon ci bëgg yi fekk ko fa mm. kon barakallahu yàlla yàlla doole xam-xam bi te dëgëral taxawaay bi insha allah kon si kanam dinañ am yeneen gan euh, yeneen yoo xam ne sëriñ Mbàkke am dina am ñum fi dalal laaj leen ci yeneen anam wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu fii ci jéemul amar waaye ba nëgën rek ñoo ngi ci plateau yi nga xamee ne ñoo ngi koy def ci bis bu tedd bii muy màggal gu magul jéemul amar gi ñoo ngi fekk sunu mbokk sëriñ Aliou Seck moo nu féete ndeyjoor moo war waxtaanee diggante taaliba yi ak daayira yi nu nekk ca bitim réew rawat na ca Côte d'Ivoire danañ ci ñëw léegi waaye ci suñ càmmoñ it ñoo ngi fi ànd ak sëriñ Cheikh Amar Tiib moom it dana waxtaan ci diggante sëriñ Beyti Ndongo Joor ak nim demeek bokk geeg ak magam yeeg rakk yeeg ñëpp loolu ci dana ci gën a ñëw allah kon bu ko defee dañuy jox kàddu gi Serigne Aliou sekk mu nuyoog mbokki taalibe yëpp Serigne Aliou asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu bokki taalibe yi bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ne nag ñoo nekk ca Côte ak bitim réew man Aliou Aliou Seck maa leen di yëgal ni ñëw nañ fii ci jéemul. di waxtaanee nag bis bi nga xam ni mooy bis bi ñuy màggal suñu sëriñ maam maam Ndongo Joor Amar kon lu ma jiitee daayira fee ca ah, ah, ca Abidjan Côte d'Ivoire Port Boué mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo fa nekk di ma ci jàppale am nañ ci lool lool Pastef kon nag bis bi nag naa ne ñaanal leen ci ba nga xam ne bii li ñu ci gis lu kaw seen jot man nag taalibe laa nekk seen gannaaw maa ngi ci sant di sant taalibe yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk foofu yàlla defal leen tawfeex xéewal musal leen ci misiba ak balaa yokk leen xéewal di ko ñaan di ko daraje sëñ Mamadou Ndongo ko fi toogal di sëñ Ibrahima Mar Dior xalifa bi ak rakkam ji ak rakkam yi bu ma waxee ñëpp damay juum waaye bëkk bu rakkam di sant bépp taalibe nag boo xam ne ak foo mën a ne Côte waa ak Abidjan ak ak Gabon ak fépp fuñ mën a ne ci monde bi maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex. jërëjëf sëñ Aliou Seck bala noo ñëw ak yow ci dëgg-dëgg waxtaan wi dañuy jox sëriñ Cheikh Amar mu nuyoog mbokki taalibe yi bu ko defee ñu tàmbalee sëriñ Aliou Seck moom ñu mujj ko incha allahul karim ndax li muy wax am na solo kon sëriñ Cheikh. bisimilah kàddu gaa ngoog. maa sama mbokk yi nga xam ne bokk naa ñoom ñu nekk plateau bi nii toog toogaay bu jekk bi nii tey dundal bis bi ci ni ko borom bis bu yéene muy ak mbaax ak jubal ak jub kon maa ngi leen di nuyu di seen wàccukaay ginnaaw bu ñu mosoo seetaan julli ci yonent bi sallallahu taala wa sallam ñu ngi sant suñu ñaar wajur sant kii nga xam ne moo fi nekkal seexul xadim mu seex Sidi al Muxtaar yàlla na fi yàlla yàggal te wéral ko di ñaan yàlla yàlla. yokk jàmm ci dëkk bi ak ci àdduna bi te lawal ko te yal na xol yi may dugg ci ki nga xam ne mooy sëñ Ndongo ak sëñ Paate ñoom de dañoo nekkoon ay mag yoo xam ne dañoo bëggante woon te yàlla tax muy ñeenti maam yi nga xam ne mën naa leen tudd te su ma leen tuddee ñu yóbbaale leen ñëpp muy sëñ Ndongo sëñ Mama sëñ Paate sëñ Ibra ak ma ak mboolem darmanko yi moo xam baabu la jaxumpa sugu saadi gumbale tàndine ñëpp mën naa ne ñoo bokk bis bi ñoo bokk luñ bëgg ñëpp darmanko lañ kon nag ñi xam ne ñoom dañoo bëggante woon te yàlla tax dar darmanko ne li ko waral mooy dar darmanko yi dañoo manko woon nekk benn yéenante jàmm dar yonte bi sallallahu taala wa sallam loolu mooy darmanko jàpp naa ne nag loolee mag ñi xam ñoo tëdd fii ba dëkk bi ak si fii loole seen maam yi daan doxal ci jamono yont bi yoon woowu lañ jàpp te ba te wàccuñu ko moo leen may lii muy mànkoo nekk benn yéenante jàmm moo leen may lii ñu nii ànd noo takku laxasaayu nekk ak Serigne Touba loolu moo leen may lii jàpp na ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk maanaam ay sët ñoo fi nekk ak i sëtaat yaakaar naa yoon woowu dong la war a tegu buñ deful lu loolu defuñu lañu ñu war li ñuy may suñ tey ak ëllëg mu jag mooy mànkoo nekk benn yénte jàmm ku gis koo gis rek nga jàpp ne kookaa la gën ndax mag ñi kat loolu dong lañ daan doxee te mag ñi lañ daan doxee ku ko wàcce rek da boo wàccee yoon rek di nga gisee bukki baa gaynde kon nag yaakaar naa foofu rek la ñu war a tegu ñi ngi sant bu baax di ñaanal xalifa bi sëñ Abdou Dior mi nga xam ne mooy xalifa sëñ dong yàlla yàggal te wéral ko fi di nuyu itam sëñ xaadim xalifa sëñ Ibnu ak darmanko yëpp mën naa ne su ma fi teewee rek teewal naa fi sëñ Abdourahmane Amar mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Paate ak Darmanko yëpp ñuy rafetlu itam plateau bi bu baax di sant sëñ gànnaar bi nga xam ne moom am bi ba booleñ ji lépp lu baax nag fu ma ci waay woo rek mu wuy li ca jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, Serigne Cheikh dana ñëwaat sax joxaat la kàddu gi waaye danoo bëgg a tàmbalee waxtaan wi ci Serigne Aliou Seck mi nga xam ñu ngi ko tuddee euh, bàyyi Serigne Fallou Amar mi nga xam ñoo nekk ndoo fee ca Ngaay nga xam ni liggéey bi ñu def ci ndigalam rek lañ koy defee moo nu fi yabal ngir xat-xat waaye moo fi waroon a teew kon bu ko defee sëñ àlliwu xam nga ni yow yaa nga bitim réew nekk fa ak mbokki taalibe jiite daayira ba fa ne di leen soññ ci njullite ak ci taalibe waaye nag ci fonkaat bis bi saa bu ñëwee ngeen mën cee taxaw taxawaay yu nu am solo joxe seen jëmm waaye joxe seen poos kon sëñ Aliou bis bi yéen ña nekk Côte ak lu ko wër bis bi bu jubsee ak bu jàllee nu ngeen koy waajale li ma waxoon léegi rek laay dellusi ci nu nu nekkee taalibey Darmanko te wax dëgg yàlla bi ma xàmmee ba léegi sëñ Aliou Amar mi tudde fekk na ma foofee ca Côte d'Ivoire ndax maa ngi fa bëgg a am ay at ah waxtaanam nag mooy du ñu ñaanal taxawu nu tamit am na lu ma ci gis waaw kon taalibe ya ma nekkal nekk foofa it yàlla def na déggal nañ ma ba boo xamee ni waxuma bis bi waaye waxtu wu ñu wootee dayre bi lu ñu am danañ ko ca def danañ jël seen temps it indi teg nekk fa waaw di ñu jàppale ñi nga xam ni ñuy sax du ñuy taalibe bi der man ko sonn nañ ci daayira bi di ci jàppale boobu ba léegi sëñ bi nag muy signal yu yu bëree bëri daana ko wax sama kanam ma di ko dégg nga xam ne kenn nettali ma ko waaw daanañu sant dañu sonn ci jaamu yàlla ak liggéey ak jaamu yàlla sant kon nag am na ñaan yu ñu defal loo xam ni wax dëgg yàlla gis nañ ci ak tawféex noo ngi ñaan nag loolee law ba yegg ci képp koo xam ne rek sopp nga darman ko wala nga sopp murit la noo ngi wëlbatiku di la ñaanal kon nag noo ngi ñaan bokk taaliba yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew ñu dollee góorgóorlu waaye noo ngi waajal daanaka bu màggal gi bu baasoo noo ngi waajal bis bi pour maanaam yàlla def nu mën ko teew fe te teewe ko ci jàmm ak dal ak xewal yu yokk di ko ñaanal bépp taaliba dara man ko taaliba bu mu doon doon ak foo mën a nekk ci àdduna jërëjëf sëñ Aliou Seck ci lu am solo loolu nga xam ni wane nga rek ni taaliba yi ñoom ñoo nga Côte d'Ivoire waaye seen xel mi ngi fii ci jéemul waaye di ci góorgóorlu ci daayira yaag yooyu yëpp yal na leen sëriñ bi doole kàttan doole leen a fay. kon dañuy wàññiku rekk ci tënk ñëw ci sëriñ Cheikh ci kàddu yu mujj yi lim nga fi léegi ñeenti maam yi nga xamee ne si ni ñoom ñoo dar dëkk bi waaye moom ko meññ mag ñeeg sët yeeg ñëpp xam nga ni ak mbokkit lu am solo la tey nit saa bu xësee ba xam fa mu bokk rek képp kum dajeel dana ko mën a jox war maam jox ko àqam xam xam fi mu bokk xam ni mu demee moom yëg ko yiir ko ba noppi dimbali ko ci lépp ci mu sori ak ci mu jige tey du wax nga léegi baatu wolof bu am solo muy yéen naar yi ni ngeen dare woon sëñ Tuubaa ba noppi mànkoo ci ay ndigalam ci lépp lu mu bëgg waaye du leen gis ca mu tere kon bëgg naa sëñ Cheikh nga ñëwal ma ci diggante mag ñi nga xamee ni ñoom ñoo seqan dëkk bi muy ko mel ni sëriñ Paate Amar ñoom ak Serigne Ibrahima mbokki Serigne Sow yëpp nga wax ma nag seen diggante ni mu demee woon ci jëflante bu rafet ak ci demle ak ci dikkalante ak jàppalante nag ba bis bi toll fii mu toll nga xam ni àdduna bi yëpp yëg na ko ci télé yeeg rajo yeeg internet beeg ñëpp yëg bis bi te mànkoog mag ña rek ak doon benn ak tuddantey doom. ak jëflante jëflante bu rafet moo leen ko mayoon kon Serigne Cheikh dama bëgg nga ñëwal ma ci loolu incha mag ñi day li ma ciy wax mooy li leen may lii mooy ñoom mën naa ne sëriñ bi dafa ñëw fekk leen ci diine waaye Serigne Touba mooy koo xam ne suñu boppam da ko defal lu mu defalul kenn lu mu fekk rek da ko yokk. ndax bu fekkente ne sëñ bi suñ da am loo xam ne mayu suñu borom la ba tax nga gis loola téye sa bopp bañ dem ci sëñ bi da mel ne njanaaw loo xam ne dañoo suq say donc waaye nag ñoom gisuñu loo lépp dañoo bàyyi seen bopp bàyyi seen lépp ñoom na dann sëriñ bi xamal na ko yaay lépp sëriñ bi gën leen a feccali bañ fees te la leen sëñ bi feccali itam dañ koo téye bu baax yàquñu ko ndax dañ koo dundal ci sunna sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàng alxuraan ak di ko jàngale mag ñi ak bëggante ak soppante noonu lañ defoon li ma waxoon lay daanu ci dellu si fu ñu tasee rek kuñ gis jàpp na kooku moo leen gën ndax loolu mooy jikk yu baax ñun ñii ne foofu dong lañ war a nekk ndax dañ ne jikko euh, rëy amul njariñ li am solo mooy woyof mbaxanakat woyof moo ko bàyyi ci bopp waaye jikko rëy darman ko war ko yor ndax mag ñi kat leneen leen mayoon ak woyof dong ma leen ko mayoon ak taalibe ak bëgg lislaam bëgg yonante bi kon nag foofu dong lañ war a nekk te maa ngi ñaax sama bopp di ci ñaax ñëpp loolu moo ñu may suñu teraanga tey ak suñu ëllëg mag ñi dañoo bennoo woon nekk benn bëggante te yàlla tax moo leen may lii loola tam lañ sàmm ki nga xam ne mooy maam ndongo nekk fii nekkal fi yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ci ndigal yi moo ko may lii nga xam ne bu sëriñ bi del si woon tam du fekk maam mu soppi tooginam ñun ñii foofu dong la ñu war a wéy dañ xam ne kat ñu dox maam ak taali bu mat sëkk ak xam xam ne ku ñu fi topp rek Sëriñ Tuubaa tax kuñ gis muy mbàkki mbàkki bu gën a war nañ ko warmaal jox ko palaasam ndax mag ñi foofu lañ nekkoon loolu daal laa am lu ma ci yokk yàlla nañ yàlla boole dimbali tàppe xol yi mu nekk benn te gërëm suñuy jëf jërëjëf sant nañ la bu baax nag kan jërëjëf jërëjëf sëriñ Cheikh ci kàddu yu am solo yooyu waaye jërëjëf sëriñ Aliou Seck ci soññee boobu nga def ci taalibe yi nekk bitim réew yàlla na suñu borom gën leen a soqali te gën leen a dëgëral sëriñ Cheikh yàlla na suñu borom gën a sàmm te gën la aar te li nga bëgg ci bokk gi ba ci soññee suñu borom defal la ci ndam ba ñëpp doon benn ndax nit moom li ko jig mooy bennoo comme dañuy lépp sax ni sangalee ñi buñ booloo rek wat weer waxuma laa nit dëkk bi li fi taxaw lépp bennoo gu ngeen bennoo ak manko gu ngeen manko moo tax daara ji dund jàkka ji dund dëkk bi am lépp jéggaaniwu leen dara te nii bu ngeen ko bàyyiwul da ngeen yegg fa ngeen jëm kon ñoo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaaraat ba tey ñoo ngi ci palaatu yi ñuy def ci jéemul amar ci bisum màggal gu mag gii waaye nag ñu daat fii dalalaat sunu mbokk ñu koy wax sëriñ Moussa Amar wala sëriñ Moussa Maar waaye nag ak sëriñ Mbàkke Amar sëriñ Moussa Mbaar mii ma nga jóge ba Ndar jiite fa daayira ba nga xamee ne si ni ñoom ñoo nekk ca foofa ca ndar waaye nag yaakaar jéemul amar di ko siyaar kon moom la ñuy njëkk jox kàddu gi mu nuyoo daal wax nag waa daayira ba ca ndar ñoom nan la ñuy waajale bis bi ak fuñ ko teg ak sëriñ bi daal nun ko jàppe ak mbooloo mamee seen taxawaay ak mu sant leen nag ñu gën a dolli seen pas-pas mu gën leen a ñaax ci bis bi kon bu ko defee sëriñ Moussa Mar yow mi jóge ndar waa ñoo ngi lay nuyu nga waxal nag ci turu daayira waa Ndar yépp bismillah alhamdulillah ñu fa yéene wax ci ndigalul borom jéemoon di it ay kàddu yoo xam ni lott nañ lool ci wax ci waaye ñu sant ko yàlla bi ñu jotee ndigalul wax ci maanaam ñu ngi may laaj man ci ñun taalibe yi nga xam ne ñoo féete ca wàllu Ndar te sëriñ bi ci boppam boole ma ak ñoom ni ma yow yi seen jëwriñ ma sante ko yàlla lool ndax sëriñ Aliou ci boppam de fekkoon na ma fa boole woon ma ak i jëwriñ yu fa nekk ni ma toppal ci ñoom ma topp ci ñoom ba suñu borom demee ba ñooña gisatuñu leen Cheikh Ibrahima Dior mii nga xam ne tey mooy xalifab maam Bayti Ndongo Dior di xalifab sëriñ Aliou jël si fa yeesal ko samam xel mësta nekk ci toog ndar moo ma fa toogloo ni ma bu dee ci ndigal ngay wéyee ca lépp lu ma digal ci laa fas yéene faatu incha allah ah, sant naa yàlla bi ma boolee ñoo xam ne it mat nañ sëkk ay taalibe mësuma leen a soñ ñu dellu ginnaaw du guddi du bëccëg muy taw muy naaj saa su ma taxawee ci seen wet wax leen digalul sëriñ bi rek kemtu lay kàttan ñan ko ci jëf mayit ma sante ko yàlla di leen digal nii man de dana dégg naa ci góor bu baax mu wax ma ni la ko dale ci suñu maam Ibrahima ba ci sallallahu alayhi wa sallam ba ci Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga xam ni moom lañu ñu mujj gis ñu wax ni bépp ndaw bu fi saa borom masa yónni nga liggéey sëb liggéey sell na nga ko bëggee saaba yàlla saa borom booleel ñoo mat sëkk loolee seere sa mooy yont yàlla Muhammad ku ne xam na Seydina Ababacar ak Ousmane ak Aliou xaadimu rasul xam nañ maam Baytu Ndongo Joor ak Cheikh Issa ak ñu mel ni sëñ Massamba Diop ñooñu lott na ñun ci sax di mel ni ñooñu waaye ñu fas yéene dar suñu jëwriñ jii di Cheikh Ibrahima Dior woote wu li caaxaan bëggu li mësta laaj lenn lu jëmul ci sa kër borom jéemul ak kër xaadim rasul amar yàlla na nga fi yàgg lool ca wér yaa ma yóbbu ma liggéeyal Serigne Touba kon dama lay sant di la ñaanal ci bar màggu yàlla baaxoon te barke Seexul Xadim ci li xam ne it mooy kuréel bi ma jiite ci ndar ñëpp ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd ak wér wasalaam. jëf Serigne Moussa Mar ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne leeral nga ci rek ni ndeke ab yëngutu daal lu mu rëy rëy boo ko jëfalul ñoñ Sëñ Touba rek maanaam day des. ndax sax Baye Moussa waxoon na ni Bamba yaa jër di xëy di gont ba far dee yaa jëfal yàlla lépp lam santaane jërëjëf sëñ Moussa Mar boo demee nga nuyu nu bokki ndar yépp bu ko defee dañuy waññiku daal di jëm si nag Serigne Mbacke Amar mi nga xamee ni si ni moom mooy raisu rabitatu ahfadi cheikh bayti ndongo joor yépp ak fu nu mën a ne ci réew mi moom mii mooy wax ci seen tur kon bu ko defee Serigne Mbacke ñu jox la nga wax ci turu sët yi gërëm leen waaye ñaaxaat leen ci ngir ñu gën a jàpp bis bi gën koo fonkaat gën koo def ni seen bis ah, kon bu ko defee Serigne Mbacke nga nuyoo daal di wóyal incha allah. yéen mbokk yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Ibra Dior Amar mi nga xam ne tey moom la suñu borom def muy xelif Serigne Jéemu yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ba lam bëgg a liggéeyal Cheikhul Khadim ak lim bëgg a liggéeyal sëriñ ndonga maamam suñ borom defal ko saaxeeran wa baatinan te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ñu koy ñaan bu baax ginnaaw loolu la euh, ñoo fi teewal comme ni ko sëriñ bi boo leen sët yi ñoo leen fi teewal war la jottali seeni kàddu kàddu gi rek du kàddu dara lu dul kàddu sant ak gërëm te di leen xamal ne li ñu am yombut ndax fii ñu nekk sëriñ ndongo mi ni màggalal màggal gi sëriñ ndongo joor nañ koy màggalal bi nga xamee ne sëriñ sëriñ ndongo moomu fekk na seexul xadim bis bi mu jaayante woon ak seexul xadim si Mbakke te booba sëñ bi sanc gu Daaru Salaam bay sanc Touba bis boobu nañ koy màggalal bi mu ko sanc bi mu ko jébbaloo ba noppi ne ko jébbal naa sama bopp addina ak àllaaxira ak mboolem askanu darman yi ñu nangu ak ñu nanguwul ñëpp ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wootee sun maam yaa fa jiitu kon nag ñun xam na ne yow yaay wuutaatu yonent bi ci kaw suuf ñu jël mu jël jëmam jox ko ak mboolem askanu yépp mu ne ko boo demee sa penkum njaarnde na nga ko sañce tu tudd ko baytullah loolu moo andi turu sëriñ baytu ndongo joor bi waaye ahmadou amar la tudd ñu koy wax ndongo kon nag kon si moom moo cant googu moo waral bis bii ndax leen lu ne dafa am lu ko waral li waral bis bii ak cant la cantuk sëriñ Ndongo Joor gi mu jëloon muy sëriñ jéemu jox boppam sëriñ Tuubaa jaayanteeg moom tey jii moo waral bis bii kon nag kon war nañ bu ñëwee si biir mbooloo mi war na noo leeral màggal googu lu ko tax a jóg ak fu ko jëmee kon nag kon loolu mooy yëllay màggal gi dëkk bi ñu naan jéemul dëkk bu mat a barkeelu la ndax jéemul muharram la ko Muhammadul Lamin sanc si ñetti fani tam xarit la ko sanc ci pàkk bii ci pàkk bu tedd bii ginnaaw bi mu ko sancee ba noppi ab taawam gumba ngoone moo sanc gàddu yàlla ginnaaw bi euh, maam Paar Tagat moo ñëw sanc Njaarnde sëriñ Ndonga euh, ginnaaw maam Paar Tagat moom moo jur maanaam Mamour Gumba Binta mu jur sëriñ Ndonga ak sëriñ Mamma ak sëriñ Paate ak sëriñ Ibra sëriñ Ndonga moomee rek moo yeesalaat dëkk bii ba turam gën a siiwee si sëriñ Jéemu kon nag kon moom la ñuy defal bis bii di ko cant cant gii cant goo xam ne. am nan fu ñu koy commencé waaye amul yamukaay ndax seexul xaddim moom képp ku la si boole te boole gam la boole war ngaa xam ne loolu doo ngay dëgg ndax sëriñ bi doo nga fi ne tey moo fi ne ëllëg kon nag sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko bu baax di ko ñaanal bu baax fee mu nekk suñ borom yokk ay maqaamam te fu mu ñeme la rek ndax 1927 la fi suñ mag bu jógee 1928 la ñëw fii si dëkk bi ba mu jébaloo mu saa ba noppi dafa ñëw fii si dëkk bi ne dund naa juróom ñett fukki ak juróom benn yoo xam ne bopp musuma metti musuma faat waxtu su ma faatoo lu mu gudd gudd na ngeen ma fi denc li ma leen di xamal mooy juróom-ñaari kilomètres yi wër jéemul ku mu fekk mu yóbbu la àjjana loolu ko amul ngërëm suñu boroom mënul te boo xoolee dëkk bi tuut na lool waaye boo xoolee jëmm ji nga xam ne barkee fi ne sëriñ baaram Mbàkke fanaan na fi ànd ak sëñ Aliou ne sëriñ sëriñ baaram ne sëriñ Aliou fankal jéemul am na marta bu mu dul wut suñu borom juróom-ñaari at bi mu fanaanee dëkk may sër yëpp ñu ngi sant wax dëgg yàlla conférence bi ñëpp jàpp nañ si sëñ Mbàkke ba suñ kilifa ak sëñ Sidi Gueye sëtu sëñ Adama Gueye ñoom ñëpp jàpp nañ ci conférence bi ak euh, maam bu ak ñoom ñëpp jàpp nañ ci conférence bi ba wax dëgg yàlla jàll nañ ni war a jàlle ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di waajal déwén incha allah yàlla yóbbu ñu si jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, jërëjëf sëriñ Mbàkke Amar ci kàddu yi am solo yooyu kon leeralaat nga rek ndeke bis bi lu ko waral mooy bis bi seen maam jóge ànd ak njabootam ak i sëtam yépp jox boppam sëñ Tuubaa waaye yëmu ca bi fi sëriñ bi jugee mu feddliwaat laxasaayam ci sëñ Modou Moustapha tey loolu dana tolloog li Baye Moussa Kana lu waay mooy ci dunyaa lu dul Bàmba baatinun sëriñ boo fi doyloo dëbul tànki Moustapha kon loolu ñoo ngi ci santaat bu baax ndax képp koo xamee ni si nii jox nga sa bopp sëñ Tuubaa moom mooy raw gu gaaw gi raw gu gaaw gi mooy jox sa bopp sëñ Tuubaa kon ñoo ngi sant sëriñ ba bu baax waaye nag santaat sëti santaat doomi waaye nag loolu nga wax ci moom it ni musta julli julli fay faat wala mu yeexal wenn waxtu loola nag seen maam da ko roye ca kam joxoon boppam muy sëñ Tuubaa ndax du déggu nodd ba kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw cay boroomam du taj jëbatiim du wuute musul di maamum du gàpparu bis du wéeru jullit boromam du dox di nelaw ci lal guddi cëy kii du lekk ba regg day mus ngir boromam jukko yooyu sëriñ bi amee woon rek moom la seen maam jël ci moom ba jëmbat ku ci yéen kon noo lay sant bu baax sëñ Mbàkke di ñaan ngeen dool nu ñaan baax a baax a baax nga jotal mu ak nuyo ci sëriñ bi ak mboolem sët yeeg mag yeeg rakk yeeg yëpp bu ko defee sëriñ Amar sëñ Moussa Amar yow it noo lay siyaara bu baax bu ngeen demee ngeen nuyu nu bokki ndar ya te gën leen a jaajjaat gën leen a ñaaxaat ñu gën a jàpp jéemul ba baax ndax nit ku ne famille siyaar moom la am moom la war a fonk kon jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu